xam na ne càmm ak yaram jur bokk na si lu ñu fi maam bàyyee woon te mu jël jéego bu am solo ci jëm kanam réew ba tax na Belgéri Cheikh Omar Ndiagane ne duñ si des gannaaw benn yoon Belgéri Cheikh Omar Ndiagane soo ko déggee def fam bu mag ñi yëngu nag ci mboolem xeeti xari elwaas yi ci ay laadum da fa fekk yii ma lay tuddal si lu ci demee ni Saloum Saloum Birahim Algori Cheikh Diop booy séréel ak magistrat yii ma la limal nag seen blog line si yëpp a nga fa fekk seen doom ak seen i sët ak mboolem xeeti xari elwaas suma gaay yi champion bangook Cheikh Omar Diegane moom mi nga xam ne moo jëloon ndam lu rëy li nga xam ne taarix du ko fàtte mukk moo andi woon xar mu ñuy wax bàcci mu jëlal ko ndam lu rëy ci jongante bi nga xam ne xar yu amagut at ñoo ko doon jongante ah sama gars yi maa leen wax lii Belzéri Cheikh Omar Diegane doxantul ba Kanifing da nga leen fa fekk baa nga jokkoo ak ñoom ci 746 1733 746 1733 baa nga jokkoo ak ñoom 37 144 53 Belzéri Cheikh Omar Diegane daal ñoom ñoo fi ne aleykum warahmatullah mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yeen ñi nga xamne yeena saxo di setan Badru TV seen programme yi Gambia Animal Lovers tay nak Gambia Animal Lovers dafa doxantu won fi ci Bijilo ñew set ci borom Bamba Fib borom Bamba Fib nak so liñ ko déggé ñepp xamne ne moy khadim tay khadim lañ si woon nag fii Bijilo defal ko surprise visit ñu nak waye dañoo dox ndanka kon Numa lañ ko waxé won rek before wonal ni éleveur yeb dinañ dem kenn par kenn ngi surprise ñepp génneel leen tamit lal mo nekk ci seen famille bu leen ko miss out topalé ma ngi dem

mbokk yi kon nañ leen ko waxe woon rek bu ñoo dugga ci tey dañ ñoo seeti woon suñu xarit wax naa leen ne surprise visit la te éleveur bu nekk dinañ dugga sa kër nag kenn par kenn su eboo ngeen waajal ñu teg kuñ seet si tey nag dafa doon monument si élevage si gambi bu yoon bi lëndëmee moom moo xuus jàll muy xaadim borom bamba fépp tey moom leen dalal tey si programme yi gambi Animal Lovers dañ dañ koo bàyyee kàddu gi mu nuyu ak askan bi ñu seetaan gambi Animal Lovers xaadim ñu ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullah Zakaria Euh, ñoo ngi lay nuyu di nuyu sa team bi yéen waa Badru TV di wax ne dal leen ak jàmm ak si ngeen fii ci bergerie Bamba fépp euh, fekk fi ndongali di xaadim di ziar ñëpp di nuyu ñëpp jaa ngeen jëf. gannaaw bi nga nuyoo xaadim ba pare euh, bëggoon ñoo xam kan mooy xaadim. xaadim moom as ndongo la rek loo xamante nii mu ngi bàyyeekoo Sénégal ñëw Gambia nekk fi di daan dooleem yàlla war wërsëgal ko fi tamit. Euh, mu samp fi belgérém nekk di yëngatu ci wàllu élevage euh, kooku mooy xaadim euh, gannaaw bi nga sampee bergerie bi nii ci Gambie mu doon bergerie bi nga xam ne is one of the best bergerie xaadim lana ko dugal ci élevage élevage su laadum nag élevage général parce que démarré wuñ ci laadum dañuy wax élevage kon élevage passion moo ñu ci dugal te passion bi ba léegi nii mën na laa wax ne la moo ñu ci bàyyi ndax euh, li ci boole ñu bari yàlla dogal na moo ñu ci boole euh, ñu bari élevage li leen ci dugal euh, juddu fekk seen parents yi di yar élevage su démb nag dëgg la ak élevage su tey am na tuuti différence waaye mën naa la wax ne la pour ñu bañ a guddal rek li ci boole ñu bari moo ma ci boole muy juddu fekk say parents di yar passion bi toppee la foofu nga màgg yàlla defal as yow itam nga continuer élevage boobu. naaw bi nga fekkee sa ay para nekkoon ay yarkat yow itam nga ñëw toppa si seen tànka xadim euh, léegi mun nañoo wax si élevage si laadum mi nga xam ne si si nga nekk right kañ nga door euh, laadum bi nii kañ nga ko door. yàgg na yàggut yàgg na yàggut parce que fii su ma juumut euh, en 2015 lañ sanc kër gi bi ñu bi ñu tuxoo rek ci même année bi la indi sumay laadum. Euh, ci gàttal mooy 2015 la xar yi ñëw Gambie waaw su ma juumut waaw. Xaadim bëggoon na ñoo xam ni yan sujet nga dooree ci laadum bi. waaw sujet yi ma dooree bari na parce que am na suma benn xarit maa ngi koy nuyu xam naa ne yàgg na ku ñuy woowee Koso Diop nekk euh, Dakar parcelle euh, moom moom a njëkk a jaay benn femelle bu ñu doon woowee Ndey Njaay Ndey Njaay moomu noonu ci liñ ma waxoon doomu bassir la woon. Euh, côté papam foog naa su ma juumu daf ma waxoon ne xaw ma macha allah bu Pape soon Mbodj la woon euh, ci lu ma mën a fàttaliku euh, ginnaaw bi bi ma doxee baat ba ci kanam yàlla dimbale waan ma ci samay première laadum laay ñëw nii yàlla dimbale waan ma ma jëndaat ci moom benn jeune mâle bu ñuy woowee koso bi ma demee ba ci kanam ma ma ma ma toppaat ko ne ko il faut jeune mâle bi mu jaay ma yaay ji pour jeune mâle bi ni ma bëggee mu nampee mu nampee ko Hari dañ bay xel yo yow bi nga dugg si élevage si laadum laadum bu mu gëna metti bu yoon bi gënee lëndëm yow si nga xuus jall dugal ci sa ay millions lana la motivit, ba nga spend that amount of halis si hari, because of time boobu noonu hari, ken xelatut ne eh, xad dina jar ay millions. bëgg rek eh, muy passion bi ñuy wax bi ñu commencé passion bi la rek parce que bu nekkon xar ak xar rek daanaka ben montant bi mën nañ ko ci baña def eh, wax deug yalla am li ñu olof di lem naan ten bi gënon na dey jamono jooju noonu dëkk bi mën naa la wax ne la mënoon naa xëy benn one hour mën naa cee visite ñu yor laadum ci Gambie fii nii wala du ko mat parce que fii suma ma juumut euh, jamono jooju benn maire laa fi xamoon ku fi yoroon ay laadum yoo xamante ni mën naa cee teg sama loxo ne lii ay pur sang la euh, muy maire Kiné maire Kiné moomu noonu laa fi xamoon euh, ki ma fi ñaareeloon Baye Jibeeru Sané la ak Alaaji Gaajo mi nga xamante ni moom itam maa ko dugaloon ci mbir yi waaw ñu daal di daw uti ji ñeneen ñu ñu ñeenteel ak yooyu nga xamante ni daanaka bu ma mosaan a génnee fii damay dugg Vespil visite li may visite rek daal di génnaat waaye période boobu noonu passion bi mu ngi fi maa ngi doon yar ay local xar yi comme ni ko ñëpp di defee foofu laa démarré mais bu ma mosaan a flow ci bu ma mosaan a toog ci tele bi di seetaan DSS ak yooyu noonu damay gis xar yi ma xam ne lii du xontu kese moo tax nag ma jóg bi ma jógee def samay gëstu ma xam ne nag xar yi nii ak suñu xar yi duñu benn Euh, looloo ma dugal ma def benn investissement boobu noonu. léegi euh, Khadim kër boo dugga di ngeen fa fekk sa Cissé muy euh, bloodline yi Nido. ginnaaw bi Nido ñëwee ci kër gi nag def fi tur bu yaatoo yaatu bi nga xamante ni daanaka fu sama tur àgg ci élevage Gambia tey ginnaaw yàlla Nido moomu la duñ ko fàtte ba mukk bi Nido génnee avant Nido yi génn ma jëndaatoon benn femelle boo xamante ni. doomu benn famille boo xamante ni doomu roi Basir la ndax dañ jëloon benn doomu magistrat teg ko ci roi Basir euh, femelle boobu juddu ñu jëlaat ko euh, teg ko ci jëlaat femelle boobu teg ko ci benn euh, mâle bu ñuy woowee Sami Jaxate Sami Jaxate moomu su ma juumut doom la ci Sami Jaxate moomu doom la ci femme affaire ak banque mondiale femme d'affaires affaire suma juumut Maxu Sey moo ko jur Maxu Sey moo ko jur banque mondiale Aïcha moo ko jur ak eh, Omar Serer lolou mo composé waat macha allah eh, macha allah moomu noonu tey moom fi yor di liggey ci bu Nido eh, jaaree ci gettigi ba genn yow macha allah nga neka di liggéey soo léegi bëggoon nañu xam allah ñaata jabar nga ko utal ak macha allah liggéeyam naka la neka di demee ci berger bi right now. balam mal bee genn relève am day taxaw ba pare Nido bi Nido ak macha allah yàlla dafa dogal fekkante nañ fi seen production fekkante nañ fi Nido ay mom judu nañ ci kër gi mom allah ay domam juddu ci kër gi. avant doo di génn parce que man euh, macha allah bi muy ñëw nekku ne dama génn dem jënd ji macha allah macha allah dama jënd yaayam ñaan tëb mu ñëw bi ñu ma mayee tëb macha allah ñëw juddu bi mu juddoo rek nga xamante ni li ñu naan éleveur euh, day dof souvent éleve dof du doyali sagar parce que période boobu noonu doomi Lido yi taxaw nañ te soxla naa géniteur te guddi googu damay tëdd damay nelaw sax euh, di xalaat kan moo war a ñëw àggale Lido liggéeyam parce que maal yomb na. mais mal buy tëb di jur di def résultant moo jafe man ngaa jàpp ne yaa nga fa ba léegi fekk euh, jóge nga fa euh, moo tax euh, bi macha allah juddoo rek lu nekk dégg naa ko mais ma ne leen xar bi nañ ma ko fi bàyyil ba ci kanam ba dama obligé woon sax dénkoon ko suma benn xarit pour nëbbu ko ndax guddi yooyu noonu gaa yi ñu ngi ma ci sonaloon pour ma génne pour ma jaay leen ko ma ne leen xar bi ci kàttanu yàlla bu yàlla nangoo moom mooy tëb doomi nidoo yi waaw. ñoo xam xaadim euh, macha allah ban kuréel nga am ba am yaakaar ne macha allah mun na téye Bergerie bi euh, contrôle ko kon ni nga ko bëggee. man pour l'instant nii sama élevage fi mu toll nii ci génétique bi laa dee liggéeyee euh, nekkul ne tey sama gétt xar bu fa amee 117 bu waree génn ci gétt gi rek xar bu amee 117 bu génnee ci gétt gi rek xar bu am moo war a moo moo war a ñëw continuer liggéey bi déedéet damay comparer ci seen parents d'arrière yi pour ma mën a continuer suma liggéey. damay concentré wu ci parents d'élèves yi pour ma mën a continuer sama liggéey ci parents d'élèves yi nag laa sukkandiku ba xam ne macha allah mën naa tëb euh, doomi nido yi parce que bu nekkee ci euh, hauteur au garrot hauteur au garrot la ñuy wax ne nido moo ko ëpp macha allah moo ko ëpp sax ku tamit waaw bu taxaw fii nii nido moo la ëpp hauteur waaw euh, mais yàlla dafa dogal bi nido génnee bi macha allah juddoo boo xoolee ci seen parents d'élèves yi li nekk ci macha allah Euh, li nekk ci Nido am na lu nekk ci Macha Allah ba pare am yeneen yu nekk ci Macha Allah yu nekkul ci Nido comprendre nga foofu laa sukkandiku ba xam ne Macha Allah force bu tëbee doomi Nido yi résultat day feeñ te tey euh, lépp wanewu na Nido avant mu fiy génn Macha Allah jur na mu jur taw taw Macha Allah yàlla dogal na fekkante na ak Nido ci gétt gi ñu koy woowee naar ma joxoon ko suma benn xarit mais vraiment naar boobu noonu tey soo ko gisee nga xam ne euh, képp ku maaseel boo ko magee yenn âge yu ndaw yi nii sax du doon sa morom waxantuma la nag muy sa maas voilà. léegi euh, bëggoon nañoo xam léegi macha allah yan euh, tour la def fii. biir euh, Belgérie bi. parce que macha allah moom day door day door parce que tour bi moo rëy rek mais 14 14 bi jàll ci lay boucler deux ans di vingt twenty four months am waaw parce que moom bi mooy deuxième deuxième touram tëb bi mu tëb famille nii mooy troisième ñu koy xaar ñaan yàlla suñu borom bi ñu wàccee ak jàmm.

kii sëñ Fallou Téye euh, moom moom itam mooy deuxième tëng bi euh, ñu koy woowee Proxaan moom euh, recrutement bu yàggul la maa ngi ko jëlee woon Dakar ci suma benn père père Modou di ko nuyu mu defaloon ma ci xéewal nag wax dëgg yàlla mu nekkoon tëng boo xamante ni dama fekkoon mu boole ko ci sélection parewul woon ko génnee mais bi ma ñëwee mu nekk nit ku baax mu yombalal ma ko moom moo ngi tudd Proxaan xaa nekk doom ci Sadio Vindo ak euh, Mourid Sadikh Mourid Sadikh euh, ci ñi ko xamut moom seex la ci Picasso waaw ñoom ay doomi Saalum Saalum lañ Mourid Sadikh ak euh, Mourid Sadikh ak ak Picasso ñoom ñaar ñooy ay seex mbokk yi léegi su ko defee ngi àndaa suñu main sponsor bi su ko defee ngi dellu si waat si programme bi mbokk yi ñëpp xam na ne càmm ak yaram jur bokk na si li ñu fi maam bàyyee woon te mu jël jéego bu am solo ci jëm kanam réew ba tax na Belgérie Cheikh Omar jegaan ne duñ si des gannaaw benn yoon Belgérie Cheikh Omar Ndiagane soo ko déggee def pam bu mag ñi yëngu nag ci mboolem xeeti xari elwaas yi ci ay laat gannaaw buñ dellu si waatee after sponsor bi euh, Hadim euh, gis nañ fi Belgérie Bamba Feb gis nañ fi ay femelle yu doy yu exceptionnel gis nañ fi ay jeune mâle tamit yu jaar yoon Xaadim dañ bëggoon a xam euh, macha allah yow production am noo ko gisee lana tax nga samp ko tey si Bergerie bi fii. ko xam élevage euh, xam ne euh, roi bassir day fay bu di ñu toll nii roi bassir lépp lu ko laal rek mën naa laa wax ne la bu ko am na bu ko laalee fa ko war laalee rek day fay te macha allah fi mu laalee roi Basir bi dafa fay ndax bu fekkente ni dañ jël doomu magistrat jox ko roi bassir yaayam juddu loolu rek doy na bàkk. ñu jëlati yaay ji tegaat ko ci beneen femelle boo xamante ni euh, tegaat ko ci beneen mâle boo xamante ni tey mâle boobu noonu euh, ku xam maaxu sëy xam li muy def ci ay menstruation nga xam femme d'affaires euh, femme d'affaires moomu noonu mën naa laa wax ne la su ma juumut bokkoon na ci ay meilleure femelle laa SN li ñu koy jooyal rek mooy fan wu gàtt mu nekkoon femme d'affaires moomu noonu ci Mamadou Dramé maa ngi koy nuyu di ko ziar suma grand bu baax boobu. Euh, femme d'affaires moomu noonu moo jur papa yi macha allah euh, ak banque mondiale euh, ba bàyyi macha allah mu ngi tudd Sami Diakhaté ku ñu wax ne Aïcha mooy sa maam ne Mahusey mooy sa mam magistrat mooy sa mam Roi Basir mooy sa mam salum salum mooy sa mam loolu doy na bàkk. gis nañ fi tamit base de di nido lana waral loolu léegi naka nga nekk di liggéey ak macha allah ak base de femelle nido yi. ko xam nido xam ne. Euh, waxuma du doomu miir doomu euh, Maxu Sëy mais mën naa la wax ne la bokk na ci miir doomu Maxu Sëy ci góor parce que wax dëgg yàlla am ni doo aw wayam marqué na empreinte fii ci Gambia te dana bokk incha allahu rabbi maal bi njëkk ñuy wax lignée bi ñuy cité lignée di ñuy woowee lignée Cheikh Diop di lii wax lignée lignée nangam lignée nangam lignée nangam Gambia bis bu fi lignée di juddu euh, Nido moom dana bokk ci xar yi nga xamante ni da nga dégg ñu ne lignée Nido bi waaw te kàttanug yàlla te tànk yooyu noonu la macha allah jaar. parce que bi Nido génnee bi macha allah ñëwee amul dara lu mu wàññi parce que Nido ku ko xam-xam ne doomam yëpp dañ daan gudd dañ daan jool mais ku xam magistrat tamit euh, xam ne mal dañuy nangulante mal mënta complété en 100 pour cent maal fi nga yam rek fa la sa morom di complété Nido dafa am loo xamante ni lu mën a jur mën a jur am na foo xamante ni njuróom foofu la yamoon bi macha allah ñëwee tamit yàqu dara ci way wi ndax euh, xar yi da toll ci croisement foo xamante ni. bo concentré ne 117 wala 118 mo génn sama gerte 119 moy dugg wala 120 rek da ngay commencé réer ñu suñu élevage dafa toll ci niveau bo xamanteni pour l'instant ci pendant derrière la ñuy croisement moo tax tay 120 man na génn sama 119, ma ñëw dugal 115 mais té 115 bobu nonu inshallah rabbi lima soxla ci 120 bi 115 bi daf ma koy défal te machallah bimu ñëwé wané na lolu parce que bimu ñëwé ñu bari dañu xol ni te macha allah ñu bëri ñu ngi koy jooj xamuñu ko parce que macha allah fi mu toll nii bu ma la waxee ne ak euh, bindam lépp lépp nii ñu bëri le 14 bii jàll la am 2 ans la am 24 mois waaw kon moom xale la dese na lu bari jeune mâle bi nga xamante ni moom itam moom la moom laa samp pour ay doomam tamit moom mu ngi mu ngi ci 16 months mu ngi ci 16 mois kon xam nga ne kon ku ma xam-xam ne xar yi may liggéey yëpp ay xale lañ pour l'instant nii. ba pare tamit bëggoon nañoo xam because of Khadim ni nga dee croisé dafa doy waar bëggoon nañoo xam euh, Khadim ndax dafa am advice bu ko teg si yoon voilà because of Hadim all the time lu euh, Gambian si dee wax mooy euh, Hadim de euh, maal wala femelle bu gën a baax si Belgium bi moom la joxe léegi nañ ko seetaan ndax dina dese dara lana lana lana waral loolu. comme li may faral di wax rek éleveur feeg yaa ngi joxe ñuy wax ne ci ci nañ ko seetaan rek xamal xamal ne la ngay joxe baax na éleveur feeg joxe woo loo xamante ñu ngi lay wax ne la da def mistake rek dese nga man comme li ma la waxoon sànq lay prouver xar yàlla dogal na bu ma la rusuta juddulu rek rusuma laa jaay ci ay qualité parce que xar bu nekk jaay naa ko fii xar bu nekk juddulu naa ko fii nii xar yu bari bu ma leen di jaay euh, boo demee euh, ci foiru Gambras bi euh, trois chapiteaux lañ def trois chapiteaux yoo xamante ni maanaam box boo nee benn box boo nee deuxième box Euh, da nga fay fekk sujet boo xamante ni mu ngi jógee Bergerie Bamba fépp. kon loolu mënuñoo def loolu ba pare di ñun tey lañ gën a mën a joxe parce que tey euh, keroog bi ma koy wax gars yi ñu ngi may reetaan ma ne leen macha allah day proposé woon nañ ma prix bu nekk ma ne leen jaayu ko mais nii mu commencé dana tax ma gën a téyewaat ko waaye yàlla dogal na tey jur na doom yoo xamante ni am naa fitu génnee macha allah ba ñuy reetaan ma ne am naa fitu génnee macha Euh, ndax gis naa ne vraiment lépp lu ma lu ma doon jooy ci mal lépp lu ma doon jooy ci géniteur yàlla wërsëgal na ma ko mais man dama gëm ne rek ah, euh, Zakaria man dama gëm ne rek man ci élevage chaque jour du secret du dara man sama xol la ma sama borom bi di fay sama xol la ma sama borom bi di fay parce que fii gétt goo fi dugg boo nee benn gétt ba ko ñaareel ya fa nekk yépp dañ koo jënd andi man fii mal yi fi nekk di tëb di def ay résultats ak femelle yi fi nekk di tëb di def ay résultats yépp ci gétt gi laa leen liggéeyee ñenn ñi seeni i fi lañ juddoo ñenn ñi seen i maam fi la juddoo ñenn ñi seen i yaay fi lañ juddoo man naa la wax ne la macha allah ñi mu fi fekk ñëpp ñaari famille ñoom ñoo fi juddoo ñi ci ëpp doole seeni i maam fi lañ juddoo kon loolu sant yàlla la fan yi am na ku ma ci doon waxtaanal ba ma àgg ci moom ne ko man maa nekk jeune éleveur benn éleveur bi nga xamante ni ku dëggal sa bopp boo taxawee sama gét loo joxoñ ma jaay la te gétt gu ma dugg parfois dañ may jaawaleeg benn nit boo xamante ni presque xaalisam baaxut parce que en tant que kilifa gu toll ne man damay ñëw sa gétt ciblé dara ne la moom laa bëgg nga may try di ma orienté di ma wax ne ma li lay jaay man doxeetuma noonu ci élevage parce que élevage toll nañ ci foo ni wax dëgg yàlla ñun amut ñu naan ñu xool leen fii euh, ci wàllu advice bi ngay wax nag man yow mii sax sama advice nga parce que man damay wax ne borom man ñëpp samay advice lañ parce que man du may xeeb du may xalaat bu rafet du may xeeb benn xalaat man ñëpp laa ubbi samay port léegi Khadim bëggoon nañoo xam euh, éleveur si boppam éleveur diggantaan nu muy mel éleveur nag xool bi daa war a yaatu parce que ñii ay moomini yàlla lañ xel bi daa war a yaatu éleveur daa war a oyof éleveur daa war a nangu critique ci kaw nga teg ko ci xam-xam éleveur il faut nga am patience il faut nga am passion il faut nga nekk nit ku oyof il faut nga nekk nit ku nangu parce que lu nekk da nga koy dégg te élevage bi toll na guddi yoo xamante ni fi mu toll nii doy na waar doy waar goo xamante ni suñu la waajalul rek euh, doy na waar daal li ci gàttal li ma la mën a wax exemple mooy doy waar waaye lu lu ci mën a am rek il faut nga ubbi sa xol yaatal ñëpp parce que ku nekk ngay recevoir dangay ngay ay soppe recevoir ay soppe yoo ay euh, ñoo xamante ni la nekk seen biir xol yàlla rek moo ko xam bëgguma am fu ma àgg mais bu ñu ñëwee ci yow tey am na nu ñuy comporte woo comporte boo bu baax mais la yàlla xam doy na waaye rek yàlla mooy àtte jaamam parce que li ci biir xol yàlla rek moo ko mën a jooj waaye nag élevage nekk na milieu boo xamante ni milieu bu lëndam la te bëri xaaxam Euh, soo ciy dox il faut nga def ndànk parce que ku nekk ngay recevoir fii heure bu dul heure bu junne da koy recevoir nit nit ku nekk ngay recevoir des fois da ngay nit mu sol ay sagar ñëw xeebu lool ci bët mais mais mais lépp loo ko jaay ci àddina mën na koo jënd fi mu taxaw du ci xam-xam du ci am-am du ci man-man kon la la cay génnee mooy art down comme moom yar yaru taalibe mën a dem ak ñëpp léegi Khadim bëggoon nañoo xam lan nga am pour tàggatoo ak askan bi nga xam ne ñoo lay seetaan ak ku buggoon a ñëw si Belgérie bi nu muy def ba ñëw fi. di jiiral sant yéen waa Badrul TV di ziar di sant ak gërëm euh, staff bi yëpp ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Belgérie ba ma fépp ba mu agsi fii mu agsi tey euh, di leen jaajëfal yéen waa Badrul TV di rafetlu seen ñëw fii euh, di delluwaat di jégalu. askan wi ak ñi ñuy suivre ci kàddu yi xam naa ne dëng na trop mais lépp lu ci dëng rek ñu xam ne jàmbu xeebu bi la lu ci jubit ñu xam ne yàlla subhanahu wa moo ñu ko wërsëgalee noonu euh, euh, bu nekkee adresse bergerie bi tamit euh, képp koo xamante ni bëgg nga fee ñëw boo ñëwee ba koko Ozone bu nekkee tonteebul nga jógee boo boo accès Coco Ozone rek boo wootee bu ñu taxawee ci ka ci buntu kër gi bu ñu tàllalee suñu loxo nga seen ñu bu nekkee trafic line nga jógee tamit bo ñëwé bo jëlé taxi bo nee ko Coco Ozone boo ñëwee ba au Ozone rek danaka agsi nga ci kër gi euh, ci walu numéro téléphone yi euh, numéro téléphone bu Bergerie Bamba euh premier numéro bi mu officiel bi 727 8585 bu nekkee en français ñukoy wowe 720 00 220 727 85 85 bu nekkee QCell bi tamit même chose 327 85 85 English 372 8585 euh, di nekk adresse bergerie Bamba fépp boo demee ci Facebook bi ñu ngi fa boo demee TikTok ñu ngi fa boo demee Snap ñu ngi fa bo demee Instagram ñu ngi fa boo taayibee bergerie Bamba fépp rek da am adresse bi ak everything waaw boo wootee lépp loo bëgg a xam ci bergerie Bamba fépp ak lépp loo soxla rek incha allah. mbokk yi tey lii lañ leen amaloon fii nii si Bijilo seeti woon suñu mag euh, muy doon éleveur bu mag éleveur bi nga xam ne monument la si élevage si Gambia bi tey ku xamul xaadim rek dégg nga ko tey dégg ngeen yu rafet yu mu fi wax euh, fii nii tey si programme bi ñu ngi leen di santa di leen gërëm seen teewaay euh, ba beneen yoon ak beneen éleveur jërë ngeen jëf mbokk yi ñëpp xam na ne càmmoo ak yaram jur bokk na si lu ñu fi maam bàyyee woon te mu jël jéego bu am solo ci jëm kanam réew ba tax na Belgérie Cheikh Omar Ndiagane ne duñ si des gannaaw benn yoon Belgérie Cheikh Omar Ndiagane soo ko déggee def fam bu mag ñi yëngu nag ci mboolem xeeti xari elwaas yi ci ay laadum da fa fekk yii ma lay tuddal si lu ci demee ni Saalum Saalum Birahim Algori Cheikh Diop booy séréel ak magistrat yii ma la limal nag seen blog line si yëpp a nga fa da fekk seen doom ak seen i sët ak mboolem xeeti xari elwaas yi cooy suma gars yi champion bangook Cheikh Omar Diegane moom mi nga xam ne moo jëloon ndam lu rëy li nga xam ne taarix du ko fàtte mukk moo indi woon xar mu ñuy wax bàcci mu jëlal ko ndam lu rëy ci jongante bi nga xam ne xar yu amagut at ñoo ko doon jongante ah suma gars yi maa leen wax lii Belzéri Cheikh Omar Diegane doxantul ba kaanifin da nga leen fa fekk baa nga jokkoo ak ñoom ci 746 1733 746 1733 baa nga jokkoo ak ñoom 37 144 53 Belzéri Cheikh Omar Diegane daal ñoom ñoo fi ne